amateur yi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ñoo ngi tey ci fi nga xamante ni nii moom mooy dëkk Aline Sitoé Diatta ba suñu ne Aline Sitoé Diatta xel yëpp day daal dem ci Casamance ñenn ñi di ko wax la la la la verte Casamance mbokk yi li ñu fi indi tey mooy wàllu làmb ay huitième édition la muy drapeau Abdoulaye Baldé di mooy mooy bu Ziguinchor suñu ko bëggee wax ci tubaab mooy maire bu Ziguinchor ñan ñoo koy loolu moom moo jar a wax loolu dinañ ci dikk léegi ci programme bi waaye mbokk yi ñu fàttali ne Ziguinchor Alaaji Cerno Njaay Aj Mamadou Lamine Samb maa ngi lay gërëm maa ngi lay sant waaye àndandoog yow ak TFM yëpp nag di nuyu téléspectateurs yi xam ne ñoo ngi jàkkaarloo ak ñun ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sant sunuy waajur sant sunu wasila Cheikh na Cheikh Saad Lamine Casamance gii ñu ñëw tey ci capitalam di Ziguinchor suñ fi ñëwee ci làmb làmb fudd na fi làmb def na fi ay jéego yu bari làmb génne na fi champion yu bari Lamine dinaa ci ñëw ca kanam kanam ak yow dinaa la xamal ni fàttalikul bu baax a baax di kóllëre dafa baax Serigne Modou ni mu wëllërante ak Abdoulaye Baldé ñuy dem ba huitième édition tey mu ni sama diggante ak TFM ci laa ko yeesal ci kóllëre Serigne Modou ñoo ngi lay gërëm ñoo ngi lay sant waaye xam nga lu xew bu xew lu a njaaga Casamance tey Ziguinchor mooy njaagu làmb dëgg la bis bi bokk ko ak kenn ñu tudde ko nag ko xam ni mooy ministre d'État waaye mooy maire Ziguinchor waaye maire yi yàgg nañ leen tudde làmb yàgg nañ leen tuddee làmb ministre yàgg nañ leen ko def waaye bii spécial la ak TFM moo tax spécial la bari la mi spécial la ak TFM waaye Cheikh Ndiaye ñu fàtte ko Abdou Diouf mooy jàkk Abdou Souleymou Bass moo ak kan Mamadou Diouf di jàkkaarloo ak King Kong moo ak kan Pape Fall dina jàkkaarloo ak Médoune Khoule numéro 2 moo ak kan Bato Sénégal ak Ñatto ak kan Fodé Doussou Ba dina jàkkaarloo Khadim Samb moo ak kan Fouron dina jàkkaarloo ak Taxi moo ak kan Gaynde dina jàkkaarloo ak ki nga xam ne moom mooy Grand Dor Lamine dana ñëw ci courant ak tax na ak yow waaw waaw waaw waaye nag courant koy doxal waaye waaye waaye waaye Gaynde wër on oh, yokk cere dooli ñaax la aca waa Crédor mooy bàkk noonu aca ñu dem régie écurie Pikine mbooloo ay wa taxi voilà kon gis ngeen euh, courant di nga xamante ni noonu la noonu la noonu la dugg see nga xamante moom mooy taxi waaye Mao Cissé wala wala ak Thierno Ndiaye gis na gis ngeen stade bi noonu nga xam ne noonu la feesee dell Abdoulaye Baldé dafa ne kenn du fay open la ku ñëw dugg moo tax góor ñaa ngi fii jigéen ñaa ngi fii mag ñaa ngi fii ndaw ñaa ngi fii waaye làmb nag li nga xamante ni noonu lay dundee fii nga xam ne moom mooy ci région yi mooy ak Thierno mooy yi daw sa yaram mooy jigéen ñi ñooy ëpp léegi ci làmb ji mu mel ni rek bu ñu nekkee ci dëkk àll ci dee jaataa jigéen ñi ëpp ci làmb ji dañoo delloo rek mbatt ca ndaa la ak cerno Lamine na góor baax na jigéen baax na jigéen ña baax a tax boobu nga ma boog ndeysaan Lamine bul sori xanaa xamoo ni jigéen ñu ñoo daan tax mbër ji bëre ba daan jigéen ñaa daan tax mbër ji fas jom ci bëre dëgg la sàmm ngorom di ci sàmm ngarmeem ba jigéen bàyyee làng ci la làmb yàqu dëgg la yéen ñi ñoo daan seet làng gi dëgg la ni nga jomba daw ni nga jomma def lu ñaaw ni nga jomma wane ginnaaw ni nga jomma wane loo xam ne du ànd ci sa du ànd ci sa ngaar mi boobu jigéen ñi ñooy sees lang yi ndeysaan boobu jigéen ñi ñooy fekk sees lang gi cosaan nañu nag na daf ko delloo si ndeysaan mu mel ni rek ndeysaan ndeysaan télévision wala groupe Futurs Médias duñu dellu ginnaaw ku ci xamul mbaar dégg nga sabinu mbaar mbaara bukki kon bu bees bi nga xamante ne nii moom moom moom la ndey géej génne suñu jigéen moom mu jaxagul <laughs> moom la def waaye ak dafa am leneen lu ma jaxal ci euh, ci loolu. loolu gis ni euh, fi nga xam ni foofu la ñu nekk tey Babou Ngom mooy tambour major bi ta te kaleñ woo woo laaj mu jox la ko kon kon wóor na ni jàng mbéy ci rek moom moo wóor ak Thierno Ndiaye. Lamine jaxagu na dafa dem ba am brevet moom baabu ngoog taxagu na ngoog bàyyam mu sës sa gi daaw xam ne moo war a wuutu uh-huh. bàyyam yore kër ga uh-huh. moo waral baabu bàyyi njàng ma ñëw nag ñu di jaayam am mbokk kër nday yépp dellu na ko fooje mu ne daa jaay ci kër baay uh-huh. ndax maay taaw maa war a lépp lu mu metti metti man mi la ko yàlla jàng jàngaat boo jàngee na Saalum tere na ko biir Siin tere na ko biir Saalum tere na ko biir. ah wër na réew. yaakaar naa mooy baabu Ngom ya ya yaakaar naa Abdou ñëw na. ñale ma seen ci digg géew bi maa aussi c'est waa kër Abdou la. ñoom la ñale ma seen ci digg géew bi waa kër Abdou Diouf ñëw na. bis da ngay a ñëw. boo teel a ñëw xam sa adversaire ban état la aja Xaadim Samb mooy bàkk noonu waaye bokkul ak suñu suñu naataangoo Xaadim Samb. déedéet mbër bi

loolu laaj naa meew bi seet bi li ma naan naa meew bi dalay gën a boo naa ko ne man meew ku ci ñam bi daal la ñëw askan bi bég na bi daal la yëngatu naa crédit et d'épargne pour la production ACED ñi ko jiite man loolu seen liggéey boole ci fégo ak ay ndaw yu xarañ sawar di leen déglu di leen jàppale di ànd ak yéen di leen xelal ngir seen bépp projet am ndam ak ACED seeni projet ñu ngi ci ay loxo yu wóor dolli ci ACED mu ngi ci bépp gox ak bërëbam yu bari yi tas ci réew mi gën a bees te mucc ayib di tax ba bépp kiliyaan mën a jëfandikoo guichet ASEP bii ko neex fu mu mënti nekk xarañ gi ASEP àndal tax na ba ngeen di jiitu ci seeni moroom ñun ASEP seen kàddu moo góor ASEP foog woon ne financement bi dina gaawee nii ASEP kër gi gën gaaw te gën a méngoog seeni bëgg-bëgg question bi yëngal jamono nga doon fan su ñaari mbër yi wala nga bañ koo doon am nga sa wàll ci promotion bi nga xamante ni ñépp ci bokk produit Samsung paket bu ci nekk boole benn télévision LCD benn machine à laver benn home cinéma benn réfrigérateur loolu yëpp kenn nit dong moo koy gañe fukki fan ak juróom yu ne daañu amal benn tirage boo xam ni ñépp ciy bokk nga doon spécialiste de l'assurance. Dommages aux biens, responsabilités civiles diverses, transport maritime, voyage et santé, risques divers et risques de construction, Prévoyance émigrée. La Sénart Assurance présente des atouts majeurs. Par l'adaptation de ses produits sur mesure à vos besoins, par la proximité avec des agences à Dakar et dans la banlieue, ainsi que dans toutes les capitales régionales, avec une rapidité dans le traitement des dossiers et d'indemnisation des victimes. La Sénart Assurance dispose d'arguments solides pour satisfaire votre demande avec un personnel compétent. Sénart, c'est un label qui sécurise. visitez notre site www.cénar.sl. Allô chérie Allô Domingo Jalisco. Diabète. ci wàllu yónnee wala jot xaalis taamu leen Money Express yoon wi gën a gaaw ci yónnee ak jot xaalis biir Afrique ak fépp ci àdduna bi Money Express wóor na gaaw na te yomb na ak Money Express Afrique am na yoon bu gaaw te wóor ci wàllu yónnee ak jot xaalis juddoo jagoo Malick Thiandoum nit bu juddoo ci dëkk yaroo ci dëkk màgge ci dëkk ah, ah, ñu ngi nuyu ñoo ngay fay fexeel ba tekki ca dëkk ba la moo tax man naw yu subaa jigéen dëgg la doon ci dugg Medina marqué na empreinte oh waa Kabru sa ngoog maa aussi te li yu subaa jigéen doon ndeysaan xoolal ci ma Medina xoolal ci wan dañuy wan ni Ablaye Balde doon saafonte Sidya Diatta ba jërëjëf Régis jërëjëf Bawo Cissé Ousseyn Diatta fi la bokk oh ak Joola fi la bokk Kose Bo caa yaay la loo Joola ba fa bokk Bawo Cissé ndeysaan ndeysaan di ko jéem ku koy mën ak du benn bukki Joola ba fa la bokk yooyu la la <laughs> la ndeysaan